mango nak buñ ko waxé fi ak crème Ndaw euh, ñu euh, jox nañu si kàddu jox nañ ci lo xam vraiment jox nañu loo xamante ni nii ñu neex la lo xam aussi am nañ si tuuti connaissance. mango fi mango export buñ koy wax moy mango bi ñuy jël di bu bitim rew fi ñu ko commencé fi diko def en 2000 mais nak mango bi yagol na fi mais instant boobu exportation bi commencé wul woon mais nak bi exportation bi amé ci la commencé dem am ampleur boo xamante ni wax dëgg yalla tous les producteurs instant bi ñu koy bay dans la zone de crème bi et dans toute la zone des Niayes.

langue bi dafa am importance sur le plan économique parce que man na ma wax sans sans te kenn démentir kenn ko que ni mango bi c'est la base de notre économie dans la zone des Niay parce que pour deux raisons euh, première raison bi mango bi mom ngay jaay mën préparer sa campagne maraîchère parce que campagne maraîchage euh, maraîchage bi ñun mën nañu wax que ni mango bi moo koy parce que da ngay mën jaay mango bi xaalis bi ngay am ci ngay préparer pour jënd sa semence pour mën attaquer

ñun mango bi dafa am importance ñun vraiment am njariñ lu bari bari bax xam mu koy indi les producteurs ñom baykat yoyé ci kër mbir japp nañu ni que autorité yi dañu leen sétane bu baaxa baax ci jafé jafé yi nga xamante ni mom lañuy jankontel ci mbayu mango ki naam nimbal na ci fekk loxol borom mais malheureusement nak vraiment mango bi aussi boy xol dañ ko bàyyi ak bopam comme ni gars dañ koo bàyyi ak yàlla parce que boo xoolee fii ñu nekk ni tey pratiquement lu ci producteur yi def bariwul lu dul bay kenn du ko arrosé xanaa kay dañ koy bàyyi ak yàlla durant la saison de pluie mu tawee ñu xaar l'année prochaine mu am production contrairement ak yeneen tool yi nga xamante ni ñooñu bon ay vergers industriels la ñu yor am les moyens am forage seen biir di ko arrosé ñoom euh, quantité bi ñuy génnee par hectare boo xoolee ñun la moitié la ñuy par hectare wala sax euh, moins de la moitié loolu lepp nak bu fekkonte ni aussi nit ñi jappé non ci euh, l'état jappé non ci vraiment ba ñu mën am possibilité di arroser euh, tool yi correctement yaakaar naa suñu rendement da fay gëna doublé wu. loolu c'est un mais deuxièmement aussi il y a un fléau un phénomène bo xamante ni vraiment muy la mouche des fruits bo xoolee tool pratiquement mang yëpp ngi ci suuf lu ci ëpp dafa daanu parce que mëna wax que ni fini ci si bi perte nañ presque vingt cinq de notre production te loolu dara war la mouche des fruits té mouche des fruits aussi dafa nek lo xamanteni dafa nek dafa général parce que mouche bi dafa yor ay lafam di di tourner té taxaw gi nga xamanteni mom la ci état bi war taxaw dafa dess producteur aussi taxaw bi ñu war taxaw dafa dess c'est-à-dire tous les acteurs yi yëngu ci mango kenn ku ci nek dang ci am pas de responsabilité bu xamanteni dang ko wara taxaw mais du may taxawuñu mais na taxaway bi dafa dess

changement climatique ak lii di la mouche des fruits am nañu ñexital bu baaxa baax ci campagne gren bi bu nu sukkandiku ci kàddug Amadou Thiam vice président bu Coprofel kurel gi nga xamantene ne ni moo ëmb mbollem baykat mo xam mango wala légume ci kër mbir. campagne ren bi campagne la bo xam ni campagne bi avec. Euh, Euh, nu mu tuddati climat bi ni mu ni mu changé ren mango dafa yeex a meññ ba dafa ñëw ci biir nawet bi muy une campagne bon xam ni une campagne très risquée presque un mois la ñu doxal bi ñu ko doxalee rek interception yi commencé bari ah DPV décrété daal di campagne L'on loolu vraiment mu trop trop la campagne dem na ba mango bi dafay yàqu ci suñuy loxo la preuve en est que dugg ngeen ci tool yi gis ngeen mango bi ni muy wadde grâce aux mousses des fruits yàq commerce bi te moo yoroon moo nekkoon euh, économie bi nga xamante ni bii moo ëpp doole ci gox bi ndax mango bi ci la ñuy loolu ni ko suñu secrétaire général di waxe bay dunde ci la ñuy bay jënd suñu dund moo remplacé gerte beeg ñaam bi beeg dugub mais ren jii moom jàpp naa ne sax dinañ soxla ay soutien parce que mango bi presque lépp dafa yàqu ci taati garab yi bi ñuy commencé ñu ngi doon jaay trois cent mujj nañ di ko jaay cent franc au kilo actuellement nii gis ngeen ko marché baa ngi fees dell ak mango dara dematu ci bitim réew lépp marché local la ñu koy jaay. moom Amadou Thiam mu ngi ñuy xamal ni itam bokk na ci li gàllankoor seen liggéey ñàkk am chambre froid ndax màngo dafa am ci ay conditions yu ñu koy denc su matewul ci yàqu la jëm. gannaaw loolu mi ngi bàyyiloo xel nguur gi ñu xoolaat bu baax fi ñuy teg ay chambre froid ndax base bi fa la lépp war a tàmbale ñun organisation bi góorgóorlu nañu ba am benn air de conditionnement mais bi ñu amee suñu air de conditionnement ce qui nous manque chambre froid chambre froid bi ñu gën a jege ñu ngi koy jëlee ji kam wala Felt Flex bi ça fait presque une vingtaine de kilomètres bon ñu doog mëna mën dem jël foofa froid té dañu fay fay 15 francs au kilo bon ci lolu sax dégg nañu le ah, gouvernement sénégalais def na un effort très important pour sauvegarder euh, les produits horticoles mais vraiment fa ñu ko def dafa baaxoon ñu jëkke woon décentralisation maanaam point de collecte yi nga xamante ne dans la zone des Niayes nekk dans la zone centre et dans la zone sud ñu installé foofu ay site de collecte yoo nga xamante ni bii dinañ fa mën di recueillir mango bi conditionné ko fo déparé fa jële fa froid boo demee ba sa chambre froid fees nga door a transféré ci sa marché d'intérêt national mais vraiment ñun ni ñu ko jàngate développement bi dañ ko commencé ca kaw bàyyi base bi échelle nag bu teguwul ci suuf nga aj ko ca kaw ba nit ki jotu ko nit ci dina bëgg a yéeg mais du ca mën a yéeg kon loolu it ñu ciy def alerte que ni point de collect yi nekk ci base bi dans toutes les trois zones horticoles dañoo war a def décentralisation yóbbu fa ay centre de conditionnement yoo nga xam ni dafay am accompagnement avec des chambres froides yoo nga xam ni minimum dinañu mën a stocker mille tonnes saa bu sa chambre froid fessé nak nga mëna transférer dans le marché d'intérêt national pour man développement bi noonu lay démé mais bu ci kaw développer ci souf développer wulit ah baykat yi dañuy souffrir. ñom baykat yi seen digënté ak njit yi nga xamante ni ñom lañu sékkal liggéey bi déssé na ra tax ndax gannaaw liggéey fa madame Aminata Touré premier ministre ba won diggee te gisunu ko. Moussa Baldé mi ñu dénk jamono ji wàllu mbay mi dalalul benn yoon seen xel. bi ñu fi amee woon chance mooy bi Mimi Touré bi mu nekkee premier ministre déplacé woon na ñëw ci zone ñaay bi ñu ànd ak moom dem ci tool yi. wan ko ni ñuy liggéeyee ak nit ñi ni ñuy liggéeyee ak jigéen ñéeg ni ñu nekkee ci tool yi ba mu ni moom xool na ak bëtam déglu na ak noppam ñu wax ko ku mu yebalati nga lëlu ci sa bureau bind rapport indi ko dina xam ne demoo ca base ba mu ni woon day continuer di def visite yi ba keram muy dem Saint-Louis nga xam ne zone ñaay bi yëpp mais malheureusement ci jamono yooyu lañ koy wàcc boobaak léegi nag ministère de tutelle bi ñu amoon muy euh, boobu Pape Ablaye sekk moo fi nekk bi Pape Ablaye Seck jógee Moussa Balde moo fi ne mais Moussa Balde moom defe naa ministre mbayu nawet la mais du ministre horticole ndax ministre boo nga xamante ni bi yóbbu nañ la ci toolu pomme de terre xamoo ci kaw lay meññ xamoo ci suuf lay meññ kooku du dimbali nit ñi parce que xamu ko xaw ma nag mbayu gerte ak yooyu mbayu hivernal yi xam na ko wala déet mais horticulture moom xamu ci dara defu ci dara aussi. mën nañ yoon la fi jaar gisaatuñu. waaw. amul beneen ministre moom gisuñu ko dégguñu wax dëgg bu baykat yi di ñaxtu ci ni leen nguur gi ñaka jappalé ci seen liggéey commerçant yi di jënd mango ak jaayat ñom itam ñoo ngi ñaxtu wala bok sakku ci baykat yi ñu wañi leen njëgu mango yi amna na jafe mom na manga gi séral nañ ko te ñu jëndé jaayat di ko yobbu Dakar est caaray ñu ay jigéen yi bëgg liggéey lool di jox ay 3 h du matin pour rek bëgg tedd xana bëgg borom tool yi nako na nu ndax jappal su liggéey bu ndax jigéen keur bi ku ne xam na liggéey la xam te mànga du ñoré mo lon xam bëgg na wàññil nako pour nu man sé am dara man sé fa suñuy soxla seeral nan ka lool nak te goñu jappalé wuñ si mànga jet na dañ ko seeral loolu bëgg na pour nu xam ko jàppale pour liggéey ci lan bëgg gannaaw ba ñu fësalee jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci àll bi baykat yi ñoo ngi dellu di woo nguur gi mu gestu leen ndax am réew mbay moo koy développé. message bi may lancé mooy que décentralisation bi ñu ko defee ba pare gouvernement bi na wàcc à la base dox ak tànkam gis petits producteurs yi li ñuy dund. mu xam ni ñii bëgg nañoo développer seen réew mais amuñu moyen yu ñu développer suñu seen réew amuñu xam-xam bu ñu ko développer boroom xam-xam yi wàcc ànd ak pratiquant yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci terrain bi ñu euh, relever les défis parce que suñu réew mi dafa feebar te Covid bi war na noo jàngal que ni ñun dañoo war a bay dunde dañoo war a conserver nos ressources minières dañoo war a euh, euh, kenn ku ci nekk jàpp ni yow yaa war a nekk la Sénégal développé ko bu ko defee gouvernement bi wàcc à la base ànd ak petit producteurs yi dooleel leen ñu am ay petites et moyennes entreprise ñuy bay di conditionner di transformer di ko consommer mais fii mu ne fii lu fi baax mango bii ngay gis lu fi baax tubaab bi lañ koy jaay déchet bi la ñuy jaay suñu waa pays haricot bi lu fi baax tubaab bi lañ koy jaay jaxatu bi kànja bi yooyu yëpp tubaab bi lañ koy jaay mais Si le gouvernement a appelé, nous devons produire ensemble, transformer ensemble, consommer ensemble. Si les pays occidentaux ont des importation, nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Le Sénégal, nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des climats. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses mais baykat mënul gas forage amul doole gas forage le gouvernement moko nous man nañu wacc à la base accrocher petits producteurs yi ñu développer le pays On damay wax chaque jour terre bi nga xamné Macky Sall tabax nako ak milliards yi mu ci def bu ko defone ci agriculture Sénégal cinq ans laa leen may ñu tabax teer boo nga xam ne Dakar lay jóge ba Bamako loolu mbay mi rek moo ko mat mais baykat yi mënuñoo dem sans accompagnement de l'État l'État itam mënul développer sans les petits producteurs loolu daal mooy message bi ma doon lancé ah di la sant ci déplacement bi vraiment rafet na fii nag mooy Kër Mbir Ndaw noor nawet guddi bëccëg saa boo ñëwee nit ñaa ngi ci terrain bi di liggéey